ñom ñëpp ko bok mu woo fa ñom ñëpp parce que ci biir campagne am day woné ni ci pôle territoire lay campagne mom campagneul par département campagneul par région des campagnes par pôle territoire pôle économique de développement kon nak lolu motax pôle bobu bu fa duggé da ngeen gis ni bu duggé Louga day sar dem wa balé région bi yépp won leen ni yeen léegi yeen la bolé parce que sen doole yeen ko bok dina leen wax ni li la bëgg def pour développer sen gox bu paré foofu mu dem ci pôle nord pôle nord bee mu nek dégg ngeen la fa nek lam lam leen proposé comme programme de développement bu jógee pôle nord mu dem nord ouest nord nord est bu jógee nord est ñu am benen pôle boo mom lañ tuddé le pôle centre ak le pôle sud ak le pôle sud est li moy juroom ñetti pôle yi yi nga xam mom la gouvernement bu euh, président Bassir Diomaye fay teg pour que mu suqali Sénégal ba nga xam légui dootu nek par région mais par pôle lay don manam dañuy bolé région yu bari ñu bolé len benn pôle xol doolé ji ñu yore ñu fexé ba parce que aujourd'hui le centre nga dañuy bay gu bari ñuy bay bu ñu paré dañ koy jaay chinois wala ñu jaay ko indien président Ousmane Sonko à travers le référentiel bi ñu présenté ci président de la République léegi au lieu ñu jël gerté gi diko jaay non def ko ci ay conteneur diko jaay Chine ak diko jaay Inde léegi dañu jël gerté gi transformé ko xott yi ñu transformé ko lim lim jur ñu def ci ay industrie def tous les produits dérivés de l'arachide ba nga xam dina mëna suñu économie yok suñu emploi ba xalé yi dootuñu dootuñu am am xey buñ ko def ko Ziguinchor ak ak euh, la la la la zone euh, sud ak sud est ku ci nekk li nga man ñu fekk si la ci dooleel la dina fe dina tax xale ya dëkk foofa dootuñu dem di mbëkki dootuñu sax ñëw Dakar parce que dañuy jàpp ne seen gox am na li Dakar am kon nag rééquilibrer le développement de notre pays loolu moo lal li ñuy tuddee le référentiel des politiques publiques donc loolu moo tax c'est important quand même tey ñu leeral leen li nga xam ni moom la ñuy waajal pour mën a suqaliwaat Sénégal tegaat réew mi ci yoon bu ko Séné bu ko defee yi génn ci jafe-jafe yi nu nekk naa nag bi ñu paree ci loolu nag bi ñu leeralee li nga xam ne moom mooy jafe-jafe yi fi mu toll ak fin bëgg a jëmale réew mi ñu wax leen li nga xam si moo fi nekk parce que li fi nekk ñetti coalition ñoo fi nekk di ruube ñetti coalition ñoo fi nekk di tappale ak di ruube kenn ki ka koy jiite moom ma ngay def campagne TikTok ak WhatsApp muy Macky Sall ñemewu la ñëw ci réew mi la ma leen waxoon am na dama taxawoon ne Macky Sall ku ko doon diri sax du dugg Sénégal actuellement ku ko doon diri jele ko Maroc sax du dugg Sénégal parce que xamna lim fi def xamna ni su duggee Sénégal dootul génn Macky Sall su ñëwoon di campagne dañ koy bàyyi mu campagne parce que mu campagne mo ñu arrangé parce que Macky Sall bu dee campagne daf ñuy permettre ñu gagner rapidement parce que sénégalais mom gis Macky Sall ak sen gis sen butit lañu yamalé yemale Macky Sall bu ñëwee di campagne mo ñu arrangé man dama doon ñaan ngir mu ñëw campagne parce que su ñëwoon Sénégal di campagne man japp naa ni da doon yombalal suñu victoire mais mom ñemewu la ñëw parce que Macky Sall xam na ne bu ñëwoon buñ ko bayé mu campagne campagne ba paré bañ proclamer résultat yi ba paré ban bàcc leen bàcc yi ba paré dañ koy daari woon woo nag yóbbu mu rendre compte ci lim fi def ci Sénégal ñim fi ray suñu alal ji mu randal li nga xam mom la fi loubal mom ak ay nitam bu boba kon Sénégal ñëpp dañ xam Macky Sall lim fi def mais même bu ñëwul de ngeen li suñu tête de liste Ousmane Sonko wax su élection yi jàllee. daañ leen won parce que xam lu ñuy bañ dañ doon bañ teel a jàpp gaay yi buñ teelee jàpp gaay yi buñ leen gañee ñu ne non non li ñu jàpp moo tax moo tax ngeen gañe moo tax ñu bëgg leen a bàyyi ba élection yi jàll yéen journalistes yi bu yi jàllee di ngeen sonn lool di ngeen jaabale tri jaabante ba sonn bu élection yi jàllee incha allah ba pare yéen journalistes yi di ngeen jaabante tribunal ba sonn parce que gars yi leen yàq ci réew mi

nek ci TikTok bi di campagne xam nga lolu gatché a reuy Macky Sall dem nous Sénégal ci TikTok bi Facebook bi tok WhatsApp bi ak di def ay appel ci ay micro pour mu wax pour que ñu tek ko ci pour ñu dégg li wax Macky Sall kon lolu moy situation ben bi mais liste boobu du Macky de ñaar ñako jité yépp yëpp ñoo ñëw ci Sénégal ak Karim Wade ñoo fa nekk di campagne TikTok ak WhatsApp Karim sax moom daa jàpp ne xëy na ñàkk na élection yi moo tax kenn dégg ko mais Macky Sall moom chaque jour mi ngi woote bu tey bu wootee yëmbal suba mu wootee Kidira bu paree Kidira daal di dem woote Pikine man damaa jàpp ni ñi nga xam ne ñoom la àndal di campagne sax respecté wuñ Sénégalais yi parce que dégg naa kenn ci ki ko doon conseil comme ministre tey mu wax ci benn télévision. le non nous sommes en train d'innover dans la campagne le de de innover mooy Macky Sall un TikTok de campagne il faut nous respecter parce que si respecter Sénégalais yi Sénégalais, dëgg nga ne yaay tëdd liste bi da ni ci pourtant lañ doon Karim dañ Karim de PDS dañ ko daan wax APR dañ daan campagne mais Macky aussi lim daan wax Karim Wade na def na na dem jaar Qatar jël Karim ñu and ci avion ñëw fi campagne lolu kay mo gënoon simple mais le fait que ñemuñ ko def moy ku ci nek xam nga ni da nga am lo amel askan wi da nga am ay mbir yo xamni def nga ko fi te so ñewé da ngay rendre compte donc encore une fois Macky Sall n'ose pas revenir au Sénégal pour comme l'air Sénégalais parce que ba légui gis na ñuy laaj na Macky Sall kañ lay ñew Macky Sall ñemewu la ñëw Macky Sall ñemewu la parce que Macky Sall xam na ni. njombe yim fi def ak yi dossier yim fi def dañ koy teg ci table ji te bu xësee dugg Sénégal dootu génnaat yéen bu ngeen fàttalikoo jour bi Macky Sall di génn presque dafa daw yow nan ngay invité ay président yu ñëw ci prestation de serment bu Bassirou Diomaye fay sa successeur yow yaa leen invité nga ñëw yow avant ñuy añ sax yow jël nga avion daw ñibbi daw génn dëkk bi avant avant président yi nga invité añ sax yow daw nga jël sab avion dem kooku daw kooku bu daw lan moy daw ku def non ñewat ci dëkk bi Si ko doon diri sax du fi ñewat kon li leer devant nous y a rien coalition yi fi nek bo la coalition benen bi parce que benn coalition mom comme wax de liste ñi mu Sénégal ñooñu mom seen wax kenn wax et puis ñom ñoo yaq réew mi nit Badji Sambou xam ni dossier Bob, dañ koy ci table ko fan lañ kan moo leen rey kan moo leen reylu nun leen reyee loolu lépp daan ko leeral incha allah ba sénégalais yépp xam ne ñii ay musiba lañ ci réew mi nguurug président Macky Sall nguur gënu koo bon ci àdduna bi loolu lañ bëgg a woon sénégalais mais bu ñu ko jàppoon tey